asalaamaaleykum mbokk internet eh, igfm point sn tey dañoo am mbégte contenté di dalal ki nga xamante ni eh, moo di Mame Bassine Thiam donc tey occasion la ñu indil leen ko mu waxtaan ak yéen ngeen xam Mame Bassine fan la nekkoon parce que nit yi gisatuñu ko defatul lu dul danse di ngeen xam tey ban métier lay évoluer ak eh, lan moo tax mu bàyyi danse bi loolu yëpp tey di ngeen ko xam donc Mame Bassine di kontaan si dalal bi ñu dalal fii si si sa kër ci cité Aliou Sow di la wax nga nuyoo ak internet yi lay seetaan. nuyu dilen leen ndikal ci déplacement bi ngeen def ñu fekk ma fi sama kër vraiment content na dilen dewenatu di baalu nit ñi ak dilen bal ak dilen ñaanal yan ñu am jamm ñun ñëpp ah yàlla musañ seytaani musibaat balaa ah dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulilah rabi alamin euh mam Bassine euh, ça fait longtemps gisatuñ la nit yi déggatuñu la xamuñu ci lan nga nek donc ñu bëggoon xam euh, depuis euh, temps bobu yépp ci lan nga nekkoon wa sant yalla ma ngi fi won nag parce que comme dama yoroon bébé xam nga macha allah léegi moom màgg eh, parce que elle a 3 ans en plus ma ngi si ñaw bi xam nga ñaw mom bo ci nekkee do am temps parce que chaque jour Sénégal événement day am ñi sant yalla bu baax a baax bu baax a baax donc euh, lan moo tax nga bàyyi li nga xam ne moo di danse bi nga xam mom nga doon def. wa dama faral di wax nan ndab kën du ko ñëdd comme danse bi demoon nañu ba partout dans le monde ñëpp xam nañ ci. xam nga ben moment ñu xawa retiré ñi ñi ngi tassu ñi ñi ngi way xam nga ñi ñi ngi ci leneen ak leneen. mais maa ngi ci aar ba tey mais pour danse bi moom wax dëgg yàlla moom arrêté naa ko waa c'est <laughs> léegi kon kañ lañ mun a xaar sa beneen produit boo xamante ne moom ngay génne soit album single wala parce que déggatuñ la tamit ci li nga xam ne moo di taasu bi aussi. waa léegi rek incha allah parce que nekkuma fi woon dama voyagé woon xam nga mais fi mu ne maa ngi Sénégal maa ngi ci liggéey bi nag mais en même temps maa ngi ci aar bi damay ñaan nag ngeen séntu ma léegi rek bi mam baas ñoog lu bees euh, fan nga nekkoon bi nga demee voyage ak lan nga fa doon def waaw non yàgguma fa na parce que dem na été bi may été dafa fekk ma nekk euh, jigéenu wérul <laughs> ma paree accouché ma ñëw ak sama doom mais maintenant maa ngi ci liggéey bi daal maa ngi ci ñaw bi mais en même temps maa ngi ci aar bi aussi waaw maa ngi euh, donc kon ñuy wax euh, nekk sa jëkkër moom moo tax nga bàyyi li nga xamante ne moo di danse bi nga doon def ko moom moo la ko teree ak yooyu kon kon demeewul noonu. non li fi mu toll nii fi may waxee yow léegi célibataire <laughs> célibataire la waaw mooy loolu. <laughs> ah bon yàgg na wala. waa def na léegi un an deux mois. ah xam nga sëy moom yàllaa ko bind yàllaa bind tas vraiment ah, maintenant moom célibataire la. Ah, kon gars yi ñoo ngi fëgg de. waaw ñu ngi fëgg ñu bari xam nga macha allah maam moom xam nga dafa jongama xale bu mel ni man jongama ni man duñu ko nopp ëpp Euh, léegi lan moo la dugal ci li nga xamante ne moo di ñëw bi yaa ngi nekk si sa aar ba tey di nekk di def li nga xamante ne moo di couture lan moo si dugal loo xam ne danga nga ko jàng la wala passion. waa passion la ci man parce que dama gis ni Sénégal instant mode rek moo fi dox en plus comme man damay jox sañse def tay baas yi toog musóor yi toog rob yi toog. xam nga ma xam ne man li may sol nit ñi bëgg ko dama leen a peese nag ba xam fi ñu toll xam ne li may def bëgg nañ ko moom samay téyeer teg sama kër di ñëw macha allah may nuyu sama clientèle yi nga xamante ni partout dans le monde presque dama leen di ñëwal waa France waa États-Unis waa Angleterre waa Suisse ñu rawati nag waa Sénégal gi ma dëkk ndax lu ma sol rek ni ñi dañ koy bëgg macha allah maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax san sama ñaari waajur nag waaw Euh, yow yaay créé li nga xamante ne moo di modèle yi nan inspiration bi nan lay ñëwee. waa man maay créé parce que man li may sol rek laa ñëwal nit parce que li may sol moom la nit ñi bëgg donc am naa teer yoo xamante ne macha allah maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax doolee jën ndox la doolee saxaar raay la. ñoo jàpp ci liggéey bu baax a baax maay créé nag maay génn ñëw ne leen defal ma defal leen mais macha allah su ma ko ñëwee ki ma koy jox après bu ko solee day kontaan am caaj am feeling. <laughs> d'accord nit yi aussi ñu ngi doon wax euh, que Mame Bassine euh, temps yi affaire yi macha allah xaalis bee ngi dugg elle est riche day toog si internet bi di wane ay boucle en or waa sant yàlla ndax man ku ne xam ne man ci or lay dox. voilà ci or lay dox fan yi passé daaj nañ sama kër sama or yëpp mais sant yàlla. Euh, le 28 bi passé jour combat Eumeu Sène bi mais sant yàlla nag parce mu gën dee réer leeg yàqule. mo gën dé damay sant yalla rek yalla doli wat indi wat lepp waaw. euh dem nga police porter nga plainte affaire yoy non si porter na plainte nak porter na plainte ñi ngi ci dox aussi ñi ngi ci dox waaw. Euh, ban heure lañ ko jël ak nan lañ ko jëlé kenn nek fi woon wala. man xaw ma parce que ñepp ñëpp ñu fa ko dama sen Sène ñoo bokk dëkk Pikine suy bëré ñepp dañuy faral dem Pikine yendu tëj sama kër man ak sama yaay ñu dëkk ñu tejé sama kër dem nag parce que man dama guddé guddee ko bima ma ko ñew lañ ma wo sama rakk ñoma ñëk ñew woo ma ni ma daaj nañ kër gi mais damay sant yàlla bu baax ba nit ñi bi ñëwee sa fekk ma may kaf ak yee ñu naa ma non lii du dëgg parce que li ma yóbbul ci or bi macha allah na mais sant yàlla damay jàpp que ni moo gën dee euh, toll na ci valeur million cinq 500 bu may xayma daal waaw mais sant yàlla. donc euh, ñu gisoon ne que Mame Bassine amoon na jëkkër après mu sëyaat lan mooy nekk problème bi peut-être aar bi nga nekk la moo tax wala da nga amul jot lan moo tax euh, man maam Bassine de macha allah saabu ju fóot boppam waaye ku ma xam ne ci sëy dox te tey tey su ma amaatoon jëkkër damay jëlaat parce que man lu ma am sëy moom ko gënal sëy moom a lépp sa macha allah ku ma mës a nag wax dëgg yàlla lii war sama diggante yow def naa ko. mais xam nga peut-être yàlla dina indi jëkkër yoo xam ne dañuy xaw a tàng am xadar yooyu te xam nga ñun man jàmm laa xam man kafoor loolu laa xam mais su ma bëggee xaj ñi xaj ma ñu baax ñi damay retiré <laughs> comprendre ma xaj ñu xaj ma ñu baax yi dafa fiir dafa nan la demee. non man moom sant yàlla côté boobu sama man moom wax dëgg yàlla dama dama nekk jigéen boo xamante ni dama brave gëm sama bopp. ku may seel aussi ci côté fiir ak yooyu man su ma amee jëkkër damay jàpp ci àdduna sama jëkkër rek mooy nooyi keneen nooyiwul. xam nga mais yàlla dafa bind sëy bind tas may sant yàlla bu baax a baax a baax a nag ma jéeg boo xam ni presque ne chaque 3 ans nga nangu war a gën loo ci sant yàlla lu bokk ak ku bëgg sëy man sëy ma gën a lu ma ah loolu laa ko jàppee de <laughs> ama ñu ngi naan maam ah yaa ngi tas commencé yaat ma leen waaw sant yàlla noon naa toog tam benn 10 ans wala vingt ans du ma sëy non du loolu sax mais man ku ma xam ni sëy laay dox man sëy moo ma gënal lu ma am tey tey su ma maatoon jëkkër damay sey sey laa xam macha allah ñi ma doon sëy ñëpp ku ma ci seen nit du ma sëgg du ma rus parce que li war sama diggante damay doo góor lu war sa sama diggante ak man sa yow dinaa ko def am sutura dinaa sagal sama jëkkër kenn du xam lim am kenn du xam lim ñàkk waaye nag yàlla moo dogal sëy ak tas may sant yàlla su ma sañoon du ma tas si àdduna mais yàlla moo ko bëggee noonu moo ko dogalee noonu dañu nangu dogalu yàlla di ñaanaat yàlla ma sëriñ bu baax bu gën ci man bu am taalibi am dal am nga copain wala bu xool Mame Bass mu jonga man di lay na copain loolu may <laughs> ba xam Macky Sall moo ne ci nguur gi ba xam ba tey <laughs> waaw. waaw léegi moom lu muy xaar jonga bu mel ni ëpp na yàlla bu ko dogalee rek déggoo ma la sëy yàllaa ko dogal bu nee nii rek noonu day dem waa man xam man moom saas su ne may bëgg di nekk ñaareel ah ñaareel ñoo déranger aw yëpp xam nga man aw bu ma nekkal dama lay déranger samay salañ salañ samay dégagement di filaale sànni ko def lu ma neex ak lu ma saf dégg ngeen ko <laughs> yow bul tax bul tax borom yi seen fit ci dem non amul problème ku nekk yaay sa aw boobu man moom de toute façon moom bu ma dugg see moom di nga xam ne gaynde ñëw na ñaareel laa bëgg a nekk gérer lépp non dama bëgg a nekk ñaareel lekk vis boobu daal moo ma neex ñaare góor ñi baax ñëpp am nañ jabar kuñ takk rek deuxième position le troisième. lii <laughs> de dara fay ko. ndox fuuta xanaa. <laughs> no ki ngay bëgganteel loo xanaa xama fu ma ko def fii ci biir xol bi laa ko dugal. ëpp na mooy sama paradise ah bu ñëwul rek ñeneen ñi ñëw ndax fi ne nii moom ñu taxaw bari nañ <laughs> bu bu baax ñu taxaw bari nañ maam daa ku ne xam ne ci sëy lay dox ba guddi mu nelaw <laughs> waaw ñu gis yaa ngi si li nga xam te ne moo di ñaw bi ñu bëgg xam ndax ñaw bi lu dox na wala mi ngi am xaalis waa sant yàlla nag parce que nit looy looy liggéey jàmb karoot sa boo koy def am ci ful rek yàlla da lay jàppale donc maa ngi sama kër gérer sama famille xam nga fondé sama foyer sama njaboot ak sama yaay sama papa ñoo dëkk man fu ma dëkk maa ak sama papa ak sama yaay ñooy nekk xam nga donc maa ngi sant yàlla parce que ñaaniwuma kenn abbiwuma kenn lu ma aussi maa ko defal sama bopp su la góor ñi dollee nga jël rek daaj ci lonk. <laughs> Euh, ñu gisoon nga yore benn école de danse est-ce que yaa yore ba ko parce que ñi ci nekkoon ñëpp yóbbu naa leen tukki nañ waa dem nañ voyage xam nga. ñi ngi fa ñi ñi ngi ba tey ñi ñi ngi liggéey ñi am nañ fay soxna ñi am fa ay sëriñ ma leen di ñaanal tam ñu fa bëgg yàlla defal leen ko parce que tamay xale am ci ndam da nga koy sante yàlla suñu borom te man ku ne xam na ne man aar nekk naa ci ba jóge ci macha allah may sant yàlla ku ma gis loo may wax que ni bëgg naa la ci sa fula ci sa mën ci sa xam nga affaire yu baax yooyu kon sant yàlla. donc ñu bëggoon xam euh, Mame Bassine ban genre xale la woon ba nga nekkee xale sa enfance wax ñu ci tuuti. waaw suboon naa pànkoon naa aussi dama pànk nag ba léegi mais duma tooñ maa ngi juddoo daaru Pikine daaru. Mhm. soboon naa waaw dama soboon. Euh, pànkoon nga si ban da nga doon wër di xeex. wala ngay wër di farantu di làqatu. non man looy nekk woon sama bopp que maa doon jàng mais xam nga soboon mooy loo teg ma yàq. loo teg ma yàq loo teg rek damay yàq sama jàng nag li ko yàq mooy xanaa damaa war a arrêté rek arrêté doon jàng liggéeyu jigéen ndax macha damay togg ba mu baax di fóot di paase looloo yàq sama jàng. <laughs> waaw tey yan conseil ngay jox euh, xale yu jigéen yi nga xamante ne ñoo ngi bëgg a dugg si sëy. Euh, di leen wax sëy moom xam neexul. te képp kuy seet maa leen ñaan yàlla boole laaj góor gu mën a muñ ak góor gu dal góor goo xamante ni xam na àqu jigéen xam nga parce que sëy dafa yàgg mais yàgg yàgg yàgg bi dara neexu ci commencement bi rek a neex mais feebar moom mooy loolu mais maa leen di ñaanal tam ku ci am sa waaju paax kay xoolanteeg moom jikko de toute façon moom kuy sëy xoolal sa jikko sa jikko jëkkër sa jëkkër xool sa jikko ba mu doyante ngeen sëyal li daal lay ñaan <laughs> d'accord donc euh, nga ne yaa ngi ci taasu bi ba léegi ko yaa ngi am looy préparé ñu bëggoon xam euh, kañ lañ si mën a jot ndax single lay doon lan lay doon quoi incha allah fii moo xam Sénégal kese doxatu fi fi moom defe naa ñiy wàcc ñëpp dañuy waddal single par jour <laughs> waaw single moom defe naa moo fi gën a dox kaset kon dinaa laal rek single xam naa décembre bi incha allah tem dina doon nag ci temu jigéen ak góor sëy xam naa ne lu ci ëpp loolu la moom waaw lu ci ëpp moom ci cadre sëy lay lay lay lay lay lay lay jógee. Euh, pourquoi si cadre sëy da nga dund lu metti si sëy wala lan la. waa sëy moom ku ci dugg mës na cee dund lu metti mais sant yàlla rek man moom dund wax dëgg yàlla dund naa ci sëy lu metti mais dama koy sante yàlla ku bëgg njaboot gu baax ak doom yu baax yu la mën a yor la ñoo xam ne fu ñu ne dama ne ñu déglu leen il faut mu metti donc sant yàlla. lan mooy sa waa instant bi pour le moment maa ngi ci ñaw bi ak aar bi daal maa ngi am samay publicité di ñaw gérer samay doom xam nga éduquer leen ñu am jom ak fulla ba man seen yaay bu ëllëgee ñu mën maa yor ni ma yoree sama waajur. donc taasu bi est-ce que doo ñu may benn taasu bu ndaw. est-ce que duñu bàyyi noonu xam nga ne. Sénégal daa bari dinosaure ay dinosaure fi ne. <laughs> loolee cof ñu ne ko cofet. <laughs> nañ ko non bul cof si loo xamante ne loolu ngay génne peut-être nga cof lu yàgg. kon ay wala waaw. ki ko mën di ko def bokku laat ki koy jéem man maa ko mën di ko def bokku mag ñi koy jéem. lii laa la ñamal duma ci wax leneen ñu koy jël fii laa yam internet euh, IGFM euh, ñoo ngi leen di jëfal ñoo ngi nekkoon ak euh, ki nga xamante ne moo di Mame Bassine Mame jëf jërëjëf. waaw dugg dugg xel la dang dang xel la waaye mel say waaja kon nuyu naa leen fay naa leen maa kontaan naa ci yéen à suivre.